tey naa la waaw xam nga xam nga tey waa tey Pawlish Mbaye xew xamante nit mën ngaa jotam moom mën ngaa reyoon ba waaye bu xewlee da nga ñëw bisam ndax dama yàgg naa xewle muy ñëw yàgg naa anniversaire muy yàgg naa soirée muy ñëw comme ma ko bu xewlee damaa war a ñëw ba may na dig ma doom na ma lay tuddee doom ji mais mais mais daf ko tuddee kii nga xam ne moom mooy Seydina Mouhamed. kan ak Bisu Ngone la ko tuddee de. Ah, ak kan ma maa ngi ñu xaale ma. Seydina Mouhamed ak ak Bisu Ngone la ko tuddee. Eh, waaw dégg nga da baat bu baax la maa allah. waaw yéen itam mooy euh, mooy gindi mbindeef. Mhm. moo tax ñu julli moo tax ñuy woor. ginnaaw yàlla dina teg si yéen itam Sala Salam kon Seydina baat bu baax la après mais dama ne dama ne eh, dama eh, ne ma lay tuddee doom. ah loolu la waxoon. ma def sama munin. jox ko am. ma jox ko am. ma jox ko ma jox ko am. lu asneu am as néew ma jox ko ndax nit amul lu nit nit nit amul lu dul ni ni ni nitam kon pam mais eh, kon bu ma bu ma waree. dafa tuddee seen am na waaye seen am mu ngi ko tuddee ma tax ma menoon tam. ba giif naa daa am lu mu la man joxe naa sikk naa ko moom jox naa ko ñëkku nag jox naa ñëkku xar moom laa ko sikk xam na moom xam naa ma yàlla xam na est-ce que waaw kon kon kon dóor waaw dóor ko dafati dafay xaar xew bu passé ma jaar moo ma moom xam na jox naa ko cinq cent mille ak nag waaw waaw nag sama sama sama dèjà man sama jóg question joxe naa comme Pambé bu ma wala tuddee ko keneen wala anak ko rafet ana Pawlish Sène moom. mais lu lan ngay wax si Bijou Ngoné tamit. bis ma loolu samay nekk pour sama jàll. Bijou sa doom day la boo yang kat pour sama jàll yéen waa journaliste yi pour sama jàll <laughs> waa sa wàll nga mu rey waa yow foog ngorog wa kaam te mu am ñaari wat nañ ko taw jàmmalaay fala yaaram ba feeñe waa saw am ngeen beneen bu rey waa yow foog ngorog wa kaam te mu am ñaari wat nañ ko laay laay laay la laa bëgg a dong yaay wax sëriñ bi leen jaamu yàlla tanu ñaan ci barke gi baal nekkoon moom la ñu wóolu malaat yi ñu yaakaar Abdoulaye yéegee ci laa jaay xala jàng sa baay Abdoulaye Thiaw adina siyaari moo di aas demul siyaari ngir turu aas ay dara gaam yi ci aas sa baay Abdoulaye Thiaw adina siyaari moo di aas demul siyaari ngir turu aas ay dara gaam yi ci aas dan tuntunan masyarakat tuntunan upaya tunai jauh apa Kawai lah ya Azuman kamu orang bayar Sí, arriba. Arriba, buntu di sino gara kita. Ay, po, dafa tàng Amen. ku góor gi imaam nee na tudd nañ ko Seydina Muhammad Rasul alayhi salaam la bi boo nee Mariama Jagana ñu gën nga xam ci biisu ngoone nee na tudd nañ ko tudd nañ biisu Jagana Jagana maa ngi leen def ko na waaye bu naqar la fi bàyyi waaye wala mi ci beneen naa tàkk mi ci bàyyi ji bi doon ko soxna Njaay turandoo yi dina bari si yow boo baaxee di jigéen dëkk ci réew turandoo yi dina bari si yow bi si tàgg na añ ngi na ngay sa yaay naqar la fi bàyyi waaye bàyyi ci jàkk laa taawu dem lakk nga gërëm moom añ na ngay sa yaay wala mi ci beneen naa tàkk mi ci bàyyi ji bi doon ko soxna Njaay di nga doon ko ko leen Muhammad benn mi def dabali Modou Mbaye te ñoo yóbboon war war ko man maa sax amatuñu kàddu sama may sëñ bi naan loolu rek doy na la suñu borom doyoon ba mu neex ko mu jël ko wàcceel ko ab saar ni ko wan na jëme isaax maa dalla saaxibukum wa maa huwa wa maa yankukum anil bi nga màggee baax nag askan wi nga bokk bu kenn gënu mu bay li fi sa maam bay fexe bu kàddu bu baax ku koy wax yow ñu sa maamay rasulillah

dëgg la de problème bi ci dara naa tàkk bi ci may laaj dugub dama soxna Ndiaye. déedéet déedéet ubbi ma nitu engagement la alaay gis Ndiaye. déedéet dama génn. turandoo yu mat la turandoo rek.